ak ay variété produits locaux yu bëri daal di fees dell ci marché bi ci jamonoy récolte bi lii euh, dafa am mboq am dugub am kii am maïs am kokorno euh, bariwaay bi nag ñuy daal di ko sentir ci njëg yi ndax dañoo daal di wàcc exemple bi gën a wàññewu exemple bi segam euh, comme yi fi nekkoon nii bi nga xam ne bi ñorowul yooyu ku mel ni gerte bi doon na ko jaay ay mille cent gerte kemb bi tey instant bi ñu ngi ko jaay ay 1000 1000 1000 100 francs 1200 kon instant bi wàññeeku na bu dee ñebe bi instant bi demoon na ba ay 1500 1600 ñebe na ba ay 2000 instant bi ñebe bi fii ne ñu ngi ko jaay bëreegul waaye instant bi li ñor li nga xam ne instant bi moo bees instant bi mi ngi wàññeeku na. muñ sukkandikoo si jaaykat yi ñoo ngi si gis seen bopp. bu baax. waaye instant bi moom moo tane moo tane moo tane instant bi période bi moo tane instant bi jàll boo waaw waaw lu mel ni ay ñebe gerte comme tege-dege noflaay yi nii yi moom instant bi ñu ngi koy jël carrément wax dëgg yàlla. si seen i client bokk na si jaaykatu lekk yi ñu defaree yi les céréales. Mariama ab jaaykatu fonde la. moom nag sentirul wàññi te njëg yi. dafa xaw a cher kilo bii dama koy jëndee quatre cent wala cinq cent francs yenn saay dama ciy génn bu baax waaye yenn saay nag bu fonde bi jeexul damay perte kuddu bi. ma ngi cent francs place Sénégal yu bëri ñu daal di koy defaree dugub wala mbokk li si mel ni fonde par exemple ñu bëri moom la ñuy faral di naan suba teel gi wala sax si ngoon gi.